dañ ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf alliance pour la république di APR yëngu na di ñu waxuk defante giita ngas gu rëy gu nar a am ci responsable yi ci base bi ca sud bu Sénégal yéen kay bi nee nañu ab jàmmaarloo ma ngi fay xeeñ ci diggante Mame Boye Diao Doura Baldé ak Doudou lu ni mel it mën na am ci Linguère ci diggante Aly Ngouille Ndiaye ak Samba Ndiobène mortal combat de guide l' mi ngi ñuy wax ne ku yóbbu nee nañu Abdoulaye Daouda ndax kii di Amadou Ba ak Abdoulaye Daouda Diallo ba ñu gëjee gisi ak léegi yàgg na donte sax ak déggoo ci seen biir du la ñu a dàq leneen lu yéene bi xëy dàq baaxuñu ko moo di photo bi ñuy siiwal démb ak tey ñu gis ci Amadou Ba Abdoulaye Daouda Diallo ak Abdoulaye Seydou Sow ñu jàppantey loxo yéene bi nee nañu photo ba du lu bees li bees Les Échos nee nañu mooy beneen audience bu ñuy séntu ci diggante président Macky Sall ak Abdoulaye Daouda Diallo Vox Populi mi laaj ndax Abdoulaye Daouda Diallo dina nangoo topp ci ginnaaw Amadou Ba mi ngi ñuy wax ne yëf yi ay rumeur ak i humeur ki manœuvre bari na ci li wér te wóor ci mbir mi bés bi la journée nañu mooy Abdoulaye Daouda Diallo ak Amadou Ba waxtaan nañu ñoo nga doon waxtaanee ci hôtel King Fahd te waxtaan Racine Sy du ko weddi ndax ma nga woon ca jataay a ñenn ñi bëgg direct news nee nañu ma ngay taxaw point actu xëy taxaw ci Mahammed Boun Abdallah Dionne ba di ñu wax ne Boun Dionne soobu na ci géew bi candidat la fas yéene doon ci élection présidentielle yi 2024 waaye yi mooy doon test bu mag bi ci moom ne li mu war njëkk lijjanti mooy ñi mu bokkal parti te xajowuñu ko bu ca noppee nag xool nu muy def ba gagné élection présidentielle yi en tant que bu Benno Bokk Yaakaar bu jugee ci loolee nag ci la ñuy xam ndax dafay wéy li fi nekk mu di continuité bi am dax rupture lay indi anki dina kay xëy ñu andil ñi mu jàppee ay candidat outsider ci élection présidentielle yi Pape Djibril Fall Bougane Gueye Dany Thierno Alassane Sall Abdoul Mbaye ak Abdourahmane Diouf ñoom juróom yi anki dina kay tudde ay candidat réformiste gis na ne li leen di xaar du yomb mbir meneen mu dul yomb lijjanti seeni borom ñoo nga ca yëral xët njëkk sursoir parti bu Ousmane Sonko bi ñu tas di Pastef gaañe nañu Cour suprême ngir di sàkku ci moom mu annulé dogal bi tas parti bi Babacar kees niñu ci xët mu njëkku la war a mën a roccil bar fu ñu mayee Khalifa Sall Karim Wade ñu bokk ci élection yee Ousmane Sonko mu doon candidat candidat à l'immigration clandestine mu di ñuy mbëkk gaaliloo ciy jël géej gi di dem barsa wala Barsaq libération mi ngi ñu ciy baaxee ay xibaar yu yéeme te doy waar ubbil yéenekaay bi ci diggante 4 septembre ba 14 septembre libération nee nañu fukki gaal looco ak juróom-ñaar teer nañu ci Espagne te gaal yooyu yëpp ci Sénégal gii fa la ñu jóge ñëwoon ca gaal ya bi ñu leen wàññee mat nañu junni doomi aadama ak juróom-ñaar téeméer ak fukk ak ñaar 1712 am na ñaar fukki jigéen ak juróom yu ca nekkoon am na it fukki mineur ak juróom yu ca nekkoon l'observateur xëy jël kàddu gi jox ko Mame Cheikh Mbaye muy président fédération association africaine yi ca île Canaries ga ca Espagne moom it na ay révélation yu yéeme ci doomi Afrique yi jël gaal yi di dugg Espagne ak coono ba daj